هذا ما هذا kon ñu ngi leen di nuye bu baax di leen ziar di leen sant di leen masawu ci xaar bu yàgg bi di tàmbale sama waxtaan gi tey ci di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ñi nga xamante ne fi ñu jaar yépp ñoom ñooñu teertu tax coalition Diomaye Président am caravane boo xam ne li ko doon topp ci mbooloo toppul beneen caravane xaar ngeen ñu guddi xaaji guddi sax laay wax xaar ngeen ñu tamit bëccëg ndar kam lay wax xaar ngeen ñu sax ci fajar heure boo xamante ne heure xadd fekk na leen ngeen di ñu xaar dafa am loo xam ne lu dul coalition Diomaye président mënu ko am mënu ko def parce que nous sommes les seuls à ne savoir que c'était impossible. Et pour ça que nous avons été les seuls à le faire. kon ak koor gi ak tàngoor gi xaar ngeen ñu ba ndogu fekk leen fa xaar ngeen ñu ba xëdd fekk leen fa kon amuñu seen fay ci seen taxawaay ci campagne électorale bi ak lu muy gàtt gàtt yépp seen détermination moo tax yegguñu handicap bi nga xamante ne bi ko gars doon dóor ñun ñu ngi woon ci kaso ba ma bëggoon rek jéegalu tuubal ñi nga xamante ne ci ay département la ñu nekk wala ñu nekk ci ay communes yoo xam ne jotuñu fa woon mën a jaar malgré seen mobilisation al malgré yéene gu ñu amoon pour ñoom ñu fekkee ko ma di leen wax ne rek maa ngi dogu ne incha allah ñoom ñooy nekk priorité ci man en tant que président de la république pour samay première visite. ma bëggoon jaajëfal bu baax les alliés de la coalition Diomaye président foog naa ne gi ngeen gisee les hommes et les femmes de valeur. qui nous accompagne dans la course à la présidentielle de 2024. ngeen xam ne c'est des alliés qui ne sont mus que par le projet qu'on porte te ñu bokk kook ñoom mu doon projet yëkkati Sénégal def ko Sénégal nekk un projet un pays souverain juste prospère dans une Afrique en progrès ñu di leen wax ne rek dañuy defal une mention spéciale au président Ousmane Sonko ma bëggoon ngeen tàccul ko ndax président Ousmane Sonko a fait preuve de générosité ñun dañoo waxoon ne mooy suñu plan A mooy suñu plan B ba plan Z bu ñu gars yi loolu laaj kan mooy seen plan A dañ koy wax Ousmane Sonko kan mooy seen plan B dañ ko doon wax Sonko Ousmane kon bu ñu doggoon ci loolu tamit ba élection weesu amuñu candidat dañuy jàpp ne rek dañ ëpp doole waaye kon kenn du am lu mu ñu wax waaye président Ousmane Sonko comme nu mu ko waxee sànq dafa mos jàpp ne projet la ñu leen présenté projet la ñu leen jaay et ce projet dépasse nos propres personnes c'est quelque chose qui trône au-dessus de nous parce que c'est quelque chose ki est intimement lié au Sénégal mu def preuve de fine stratégie kuy xool un fin stratège politique kuy xool un génie politique bul wër fa sori waaxul ba ci président Ousmane Sonko nga jàpp ko il a su faire preuve d'élévation personnelle de mettre le Sénégal au-dessus de tous et au-dessus de tout te loolu moo tax tey projet bi am candidat loolu moo waral tey ñu teew fii tey yëpp teewal projet boobu nga xamante ne mooy projet bu ñu leen jaay mooy le projet patriotique ma bëggoon rekk wax ne élection présidentielle bii ñu dëgmal gannaaw suba dafa ne élection buy sénégalais di tànnee d'abord entre la rupture et la continuité est-ce dañoo bëgg a li fi nekkoon wala dañoo bëgg a changer changement buy sopp Sénégal abadan dayman bu nekkee lu ñu gis ci ñaari at yi tax ñu bari ci yéen dem kaso ay seen xarit yu bari daw génn dëkk ba ba fekk leen ci ñu bari am ay gaañu gaañu ñu bari wàcc liggéey bu dee continuité boobu ngeen bëgg dem leen wëri feneen waaye bu dee rupture ngeen di seet mën naa leen garantir ne que j'incarne na cette rupture que nous recherchons et que nous appelons de tous nos voeux mbokki Sénégal je veux vous dire que pour incarner la fonction de président de la République que je suis prêt. Je suis prêt à enfiler avec de président de la République du Sénégal au soir du 24 mars 2024. Je suis prêt à endosser cette fonction pour un, une opportunité d'engager durablement notre pays vers du développement et de la refondation. Je suis prêt à pour la réconciliation des cœurs et à la concorde Sénégal dafa jot ñu juboowaale koog boppam juboole waale waat sénégalais yi seen diggante. bu dee loolu la pare naa ci. bu dee réhabiliter je suis prêt à m'engager à la dignité économique de tous les Sénégalais. et à lutter à, pour éradiquer la pauvreté au Sénégal pare na pour delloowaat sénégalais yi seeni ngor ci koom-koom ba ku nekk foo nekk sa wërsëg fekk la fa ku nekk noo sori sori lu ñëpp bokk ñëpp jot ci je suis prêt à lutter contre la corruption à tous les niveaux pour que les ressources nationales soient exclusivement orientées vers la satisfaction des besoins de nos compatriotes yéen sénégalais yi laay waxal pare na pour xeex ak ger gi nga xamante ne law na ci Sénégal pour que li nga xamante ne mooy alalu askan wi lawaat ci askan wi li nga xamante ne ñëpp ko bokk di jëriñ ñëpp je suis prêt à mettre les jeunes au cœur des politiques de développement en mettant en priorité leur formation et l'appui à l'entrepreneuriat dafa jot ñu gunge ndaw ñi jàppalewaat leen former leen jàppalewaat leen ñu mën a samp seen yëfu bopp mën a liggéey mën a teral seen bopp teral seen i waajur je suis à soutenir efficacement les femmes dans les domaines de l'éducation de la santé de l'accès aux ressources de, et de lutter contre les violences basées sur le genre pare naa pour jàppale jigéen yi gunge leen ci formation gunge leen ci faj leen gunge leen ci ñu mën a defar seen bopp mën a moom seen bopp mën a amal seen koom-koomu bopp ba pare défendre leen ci lépp loo xamante ne ay nooteel ak xoqatal goo xamante ne dégg leen ko tëj je suis prêt à développer et à moderniser les secteurs économique clés l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, la tourisme, la culture, les transports et les arts. kon pare naa pour développer Sénégal pour suqalewaat Sénégal te loolu yéen ñii laa ko fas yéene defee ak doomu Sénégal yépp ñi nga xamante ne ñu ngi fii ñu ngi dans la Séné ñu ngi dans la diaspora te bëgg a ñëw jëriñaat Sénégal jëriñaat Sénégalais yi à veiller particulièrement à la sécurité interne et à la sécurité à ses frontières pour faire du slogan armée et nation une réalité de par l'implication de l'armée dans les programmes de mobilisation citoyenne et de construction des infrastructures sociales pour au bénéfice de la nation. Je suis prêt à réformer les institutions particulièrement la justice, et à mettre fin à l'hyperprésidentialisme et à appliquer pleinement les recommandations des assises nationales et de la commission nationale des réformes des institutions dafa jot yoon dellusiwaat ci dëkk bi waaye dafa jot surtout yoonal samp ci dëkk bi te amul benn président buy ñëwaat mën ko fee déjëti ñaari at yi ñu weesu ni nit ñi demee kaso lu yomb la lool te teguwul ci benn yoon loolu la bëgg mu jeex ci réew mi je suis prêt à poursuivre notre coopération avec les partenaires du Sénégal sur une base gagnant-gagnant fas yéene nañu wéyal jokkalante gu ñu am ak bitim réew waaye ci loo xamante ne ci intérêt Sénégal ak intérêt sénégalais yi kese lañ koy lal dina jeex sénégalais yi toog am seen ressource li leen yàlla xéewalee ay nit jog jégaane ñëw fii war si di jël ressources naturelles yi di ko jël di ko yóbbu pour seen njëriñu askanoo je suis prêt à raffermir les relations avec les pays frères du Sahel et à travailler à leur retour dans la famille CEDEAO xam ngeen ne li Mali lii Burkina lii Niger ñu ngi commencé di sori lii di CEDEAO li di UEMOA te ñuy suñuy mbokk di suñuy frère di ñoo xamante ne yàlla moo moo ñu leen tànnal ñu bokk ak ñoom ay ñoo ñu dinaa liggéey en tant que président de la république li ma mën pour ñu delluwaat leen ci biir CEDEAO ñu xam ne dañu am seen place ak seen rôle dans la communauté africaine je suis prêt à faire preuve de justice sociale envers les personnes vivant avec un handicap dafa jot ñu jàppale ñi nga xamante ne yàlla def leen nato way laago ñu jàppale leen ñu mën a am accès à des emplois ñu mën a defaraat ay yeneen institution yu bees bu weesu INAFJA ñu am fu ñu leen di former bu ñu leen former ba pare ñu gunge leen pour ñu mën a liggéey waaye ñu jàppale leen ba ñu am accès gratuit di sa di di faju dans les structures publiques te duñu fay dara waaye nag je suis prêt par-dessus tout et je m'engage à être un président de la République qui soit le président de tous les Sénégalais un président dévoué et déterminé à assurer la stabilité du Sénégal dans la concordance et la concertation permanente afin que le Sénégal continue à inspirer dans une Afrique en progrès pare naa pour den président wu ñëpp président buy tëddee njaaxaanaay ci dëkk boo xamante ne dootul am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey waaye doon président boo xam ne li place Sénégal ci biir Afrique li Sénégal doo waree doon royukaay ci biir Afrique da koy taxawee ba mu mat sëkk je suis prêt enfin à être le président porteur de l'espoir que voyez en nous et que pour cet espoir-là ne soit jamais trahi mbokk yi xam leen ne Bassirou Diomaye Diakhar mii taxaw seen kanam bu mu leen waxee ne damay déclarer sama patrimoine foog naa ne balaa ngeen doon ñëw fii jàkkaarloog man ku ne gis na lu ma am nekk nekkuma président boo xam ne dafa sàcc luubal jaar fa ko neex ba ñu fal ko mu ne am na ay xam ngeen sama biir xam ngeen sama biti gis ngeen sama sikkim gis ngeen samay soxna xam ngeen sama alal nu mu toll kon bu ngeen ma falee doo leen am mbetteel ci man du ci lenn nag je suis transparent et je suis un président qui entend promouvoir la transparence ak man lépp day set lépp day ñor lépp day jub xocc lépp day weex tàll rek ñu avancer Sénégal mën a jëm kanam waaye yéen jeunesse Sénégal lay waxal xam leen ne bu ngeen bëggee président bu leen dul war mukk fal leen ma je ne vous trahirai jamais je suis président intègre je suis président juste je suis président boo xam ne Sénégal moo dee ci xolam sénégalais yi ñoo ko jaral lu ne te sénégalais yi ñoo koy jaral mu am taxawaay gune asalaamaaleykum wa rahmatullah Vive le Sénégal, vive la paix, vive l'Afrique. ndax ni may gisee ni ñuy gisee noonu lañu mu tee mën a ñëw la ci benn te xam ni dafay li baax loolu moo ci gën